ziar ziaratam mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi dañu déplacé wan ñëw ba fii ci euh, Tivaouane Peulh plus précisément ñoo ngi APIX ñëw seet ci un espoir mais mbër mi ñoo ngi ko daan fekk parcelle unité 10 fa lañ ko gën a xamee pensionnaire de liquide rock énergie moom laa ñëw seet si tey en l'occurrence sama invité tey mi ngi tudd Gilo Gilo di ndaanaan di espoir Gilo yàgg ci làmb def ci def ci def ci lu yéeme mbapat ba arène moom lañ ñëw seet si tey euh, di leen wax juste que ne bàyyi leen ko xel bu baax bàyyi leen xel bu baax sama invité tey bi kii di Julo Buur ak énergie moom laa dalal yàgg na ci yoon bi mais def na ci lu ne def na lu ne ci làmb le la de Modou Lo moom laa dalal tey le poulain di coach Pambay moom laa dalal tey bàyyi leen xel sama invité Julo Buur ak énergie moom laa dalal mbër mi nuy naa la maa lay fay grand bi ci loo ne ñu ngi ci jàmm bu baax baax géej waa gëj nañoo gisee trop trop trop gëj nañoo lu waral lu ñaar non dara làmb ji ni mu demee la rek moo tax ñu toog suñu ruq di déglu. Mhm, di déglu di xool. waaw boo demee ba làmb xaw a dëgër sa côté da ngay def recul. taxaw xool ban yoon ngay jaarat bu affaire yi leeree nga ñëwaat. bu leeree nga tegaat ko ci. waaw noonu lañ bëgg daal. déjà avant tout dama naan lan ngay nuyoo ñu lay seetaan. waaw di nuyu ñu ñuy seetaan di nuyu monde entier di nuyu ñuy seetaan sud bi. Mhm. waaw di wax ne tamit tey gëj nañoo feeñ télé gëj nañoo génn. comme tey da ngaa def déplacement ñëw fekk ñu ba fii APEX ñu war a waxtaanee tey ci làmb ak suñu carrière kontaan naa ci di nuyu ñëpp nag di nuyu supporter Julo yëpp. Julo ci làmb en tant que Halpulaar booy ana Halpulaar ak bëre. waaw bi may doog dugg ci làmb nag ñëw maa ngi xees pecc ñëw bi ma ñëwee ci dugg ci écurie bi dañ ma doon reetaan. ñu ne instant yi pël pël pël bi ñëw na suñu ikiri pël bi ak xonkaayam ak xeesam ana pël bi ak bëri ana pël bi ak bëri heure bi mu la waroon fekk ngay sàmbi ay nag nekk fuuta mais biñ dawalee ba ci biir sëriñ xam ne kii du pël kase mbër la dafa rax ne pël bi dafa rax waaw ñu gis ne pël bi dafa rax kii am na lu mu àndal euh, léegi avant tout sama première question dama naan Zilo euh, lan moo la boolee ak bëri histoire ak lamb fa la tàmbalee waaw suma histoire lamb presque dama nekkoon de 10 yaroo ci mbër yi di jang sama yaay téré na ma sama papa téré na ma ma ci bir mbeuri ñam dolfu ak sama grand bu ñuy wax Abdou Fall bobu voyage gul sax mu ngi di beuri ma leen di topp nekk tout tank mën na né comme dolfu ak ñu wax Abdou Fall ak Modou presque ñoo duggal dugal ci lamp bo né Modou moy modlo bu ma né wa moy modlo ñu ngi mbapat ma nek xalé bu ndaw di daw jang di leen top dis nga juddoo. Hmm. interdis ma ay judo, Pikine. Pikine nga juddoo. Pikine la, judo dis la yoroo fa la jangé beuri mais Pikine la juddoo. d'accord mais aussi da nga nekkon ci cogne buñ né interdis Euh, xel yi dem ci baabooy bala bay numéro 2 xel yi dem ci euh, déjà parcelle rek seen area boobu noonu bàyyi pël mitrailleuse euh, super jamono yaa ngi may dégg yaaram géy ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoomin moodu ñoomin zos da ngeen nekk ay booy garga mboose ngeen nekk ci koñ boo xam ne dafa bari woon ay ay mbër aussi mën naa ne interdis kii bi école bi waa Equiroc énergie fa lañ daan fa lañ daan entraîné est-ce que du loolu moo yàq sa njàng waaw booy ci bëri man demon na ba sama yaay ne ma est-ce du porte plainte mbeuri ak sunu ikri wala dem wax ak modlo parce que maa mu ngi gis ne doomam mu ngi commencer yak âge bobu maa ngi nekk booy teel a bàyyi jàng di len top 2004 2005 di len top ñuy mbapat may tepp sunu kër di tepp virus bi duguna la di tepp mir di seetaani ñam dolf ak grand bi ñu wax Abdou Fall dem na États-Unis ba ñew légui di len seetaan ñom ñoma ma gën motivé virus bi commencé ma dugg nag mënatuma téye sa mbokk may commencé jang di làqut sama yaay di dem di commencé di mbapat par nank nank wa mais mais mais Julo euh, man bi ngay mbapat daan nga bëree ma yéemu daan nga bëree des fois nga def ay geste des fois nga def ay clé je me dis que kii est ce que est ce qu'il va bien kii nu mu demee noonu kii est ce que raxul bëree bobu fan nga ko jëlee waaw bobu man du yow kasse man bi may mbapat mbapat na presque 5 ans parcelle bëri na fa lu mat 4 ans 3 ans 4 ans yo xamné sama ngemb laalu suuf damay dem ba dañ may jëw né ki ngemb lañ ko fokk wala dafa am lu mu rax dafa am dafa rax dafa rax waaw du yow yaa yow loolu yow yaa yow laa mujjee dégg nga ma koy wax mais bëri naa ba taay ci làmb génn di dax ñu ne ma dafa rax wala dafa am lu mu àndal wala dafa am luñ ko booleel loo xam ne mais moom kase bëriwul ndax man daan nga bëri lu yéeme ndax ndax prise yi ngay daanee mbër yi ah. prise yi ngay daanee mbër yi tam nañ ma ba taay dugg naa ci mbapat ba taay génn ñu ne ma du julo mooy bëri dafa am lu mu àndal parce que pël la pël la parce que pour day am gàllaaj ak yooyu mais du du gàllaaj mais bëre kase la lutte kase la kase kase kase bëre bi fu mu jóge jàngaluñ ma ko juddu naa ci làmb juddu naa ci ay samay grand frère ñuy bëre ñam dolf comme ñu mën a tuddal nii ma leen toog tarbiyo ko mais mënu ma la wax ne diw moo ma jàngal bëre mais lu ma dab la en plus tamit lu nekk ci man la bi may nekk xale ñu ñuy tegal juróom-juróom dañu doon tegal juróom école li gën a yàq sama jàng ci la bokk duñ tegal juróom fukki dërëm récréation buñ génnee chaque récréation bu ñu génne bu ñu dugaatee dañ may dóor parce que prof yi dañuy bañ ku ku bëre bu récréation génne bëre ak karaté man dama koy maa koy diriger. ma doole ma nekk xale di jàng ñuy bërante mais fu ñu tegee juróom-juróom man aaleloo am na ku ñuy wax aaleloo raqu murloo la ak sama benn copain bu ñu wax ñu ñu ñoo bokkoon classe ak sama ñu ñu mel ñu ñu waa moo ñu magoon sax mais bi nekkoon ci terrain bi euh, côté ñoom ñoom kii ñoom daam daam jaw ñu ñu moo ne waa léegi bàyyi na bëre mais boobu moo ñu rawoon ay classe rawoon nañu ay classe moo ñu mag mais bu génnee ponkal yi comme comme comme champion yi ñi rakku xaarim kunta la rakku kharim kunta la rakku kharim kunta la wa xam nga ko bu baax je le connais bo yooyu xam nga rek mané 10 defna fa sama enfance ben instant bo mu ngi ci école bi di jang moñu rawé won touti ci classe comme rawé na ma ay ñaar ka mais buñu moo ñu mag tuuti mais buñu génné dañ fay dajalo di tek jurom jurom mais sa xaalisu ndek gay tek jurom jurom 100 francs 100 francs buñ ko dajalé day met ben 200 4 personnes wala 5 personnes ñoy bëre ndo kenn moy jël xaalis bi yépp so daané ñëp yow ya koy jël fofu la mo bëre commencé dugg buñ ko téggone heure bu ñu ko tegee man su ko ñu ñu jël maa ko jël wala aliloo aliloo raqu loo la. ñu ñëw loolu la fa demee woon. Euh, mais aussi dañuy dellusiwaat ci technique bi. Euh, Julo damay jël rek benn combat rek comme référence euh, sa digganteeg Boy Pikine Serigne Serigne Ndiaye tëggoon ko en 2010 terrain église ngeen bëree bëree bu metti yaa ngi may dégg. ngeen bëre bëree bu metti su ma jumul su boobu Serigne Ndiaye mi ngi joxoon grand combat combat bi laay Pythagore ak ak Boy Bawal Boy Bawal laay Pythagore mooy bëre mu jóge écrit ñoom Ama Baldé école de lutte Ama Baldé waaw Boy Pikine waaw maa ngi koy fàttaliku maa mais est-ce que est-ce que yaa ngi fàttaliku waajooju jël bi nga ko daan parce que tamit jour boobu xam nañ xam naa ni gars yi tam lañu dem parce que da ngeen bëri ngeen combat bi metti mais Julo geste technique bi nga génne pour daan Boy Pikine saay léegi la waa parcelle di bàyyi di ma tam mais saa bu ma bëree mbapat su ma génnee ñu tam ma làmb jooju noonu bëri nañ fa lu rëy ma daan ko mais fàtte naa sax defet laa dul fàttelu ko defet suñ ma daanee ci làmb ki ma daan ba ilaa abadat fu ñu daje naa xam ne daan na mais ñi ma defet bugguma defet mais ñi nga xam ne dama daan mbapat fàtte naa la ma daal fii benn mbër may yëg di ni dinu tiwaan pël yi entraîné ba ci digg bi benn ma xam nga ma ma ne ko déedéet mu ne ma bëri parcelle daan nga ma jël bu rëy ma ne ko wallaay fàtte naa ko mais bu fekkoon yaa ma daan su ma ne jàkk naa la xam mais jour bi ma lay wax nii xam naa ne lendemain bi gars yi tam nañ la dëmm parce que oh booy booy booy geste bi dafa rëy da ngeen a bëri lu metti uh-huh. mais jël bi dafa dafa yéeme dafa yéeme waaw dafa yéeme terrain église ñun terrain église presque Xaadim Fall moo ñu fa génnee sa saa buy tëgg làmb saa buy tëgg làmb man dinaa ci bokk bokk naa espoir yi mu génnee biir parcelle saa buy tëgg làmb man daf may woo ne ma Julo da ngay bëri ci sama journée mujj gi parcelle damay toog jaaxaanaay rek xam naa ne ku tëgg mba fa dag may woo parce tamit sama tur ëpp na ma doole tollu ma nenn maa gën a tuuti roog énergie mais tur bi jaaxal nañu bëri ñu fokkoo ngemb mais du bëri bi spectacle bi ak bëri bi la man maa jaay sama bopp biir parcelle mais du du gàllaaj du dara dañ ma doon tam nga génn parcelle des fois man dëkk dëkk yi ma damay génn man dëkk bu am na dëkk yoo xam ne su ma tegee sama tànk dañ naan fii laa juddoo fii laa yaroo Modou na benn dëkk bu ñuy wax Sindia bi mu egsee di jënd essence ci station bi bi mu tegee tànkam julo lañ ko njëkk a laaj te bi woon na ma téléphone ne ma dëkk bi yëpp ñëw lañ ne ko fa télé bi nekk sama laa ko jëlee da nga daan jógee parcelle dem ba ci àll bi di jël ay télé di indi personne du ma topp su suñu waa kër kenn du xam fan laay dem dama doon jël naa fa mbapat dëkk bi ñuy wax Sinja jël naa fa mbapat ñaari yoon dëkk bi ñuy wax Fimela nag bi ma njëkk jël maa ngi ko jëlee Fimela en ah, deux jël naa nag jour boobu Mamadi Ndiaye moo jël luur bi man maa jël lese bi nag boobu sama yaay bi mu ko jaayee yàggul ah jël naa dem naa Diofior jël naa fa mbapat jilas jël naa fa mbapat ah ak dekk yi ak ak ak ki dekk yi ma dem dal dekk yi ma munu ak ngaay ngaay jël naa fa mbapat ah kawlax la mujjé dem kawlax dama fa dem ñew jël avance arène dem fa bëré mbapat ñew ñu ne ma dugg nañ ci Covid bi mënatuñ bëré mais mbapat ma mujjé bëré ma ngi ko bëré dekk bi ñu wax dekk bi ñu wax Kër ma jibel ak sibo sor ak dekk bi ñu wax sibo Sibassor dekk yi ma lim yi yëpp yëpp dafa gën sama xel mais dekk yi ma jël mbapat yi mënu moko compter waaw euh, bi may ñëw pour man ki may seet si xam naa ko bu baax a baax a baax mais ndeke dese naa laa xam waaw man de wax dëgg yàlla li may bëre ci àll bi su doon dañ koy filmer di ko tegal waa parcelle cër bi moom moom nañ ma ko gën a jox mbëri nañ ma gën a jox te damay ragal sax mbëri bañ a bëri man sama catégorie parce dañ naan kii ba léegi tey la waalo gën a aay su ma génnee di bëri ci làmb ji su ma génnee di bëri ji mbapat ci àll bi mais euh, pour dellu si combat combat choc yi waaw man maa ngi bi may njëkka a wu maa ngi bëree inte 5 benn mbër bu ñuy wax Hitler Hitler mu nekkoon mu am coow ma am coow ñu boole ñu inte 5 mbapat bu amoon na choc ñu bëre ñu takk suuf mais presque maa daan mais arbitre bi dañ dem ba yëg sama loxo comme koñam la ñu tas làmb ji ma koy nuyu au passage champion ba mbër bu mag la bëree foofu tamit dafa am coow ay paaka yi génn ñu dàq ñu mais presque maa nekk ci kawam biñ ñu yoof yoof bëri naa ko maag Modja. Modja bu yoof moom mu ngi bëri arène boobu nekk gu ma mbëru arène maa ngi nekk mbëru mbapat mais tur da nga naan bëri na bi mbapat la yam rek mais boo ko déggee da naan bëri ay arène mais ay combat mbëru arène laa doon bëreel mbapat man man maa daan waaw bi ma ko daanee lamb ji am coow ñu firi fa ay bégu naaw ñu daw jóge fa parce que biram ñi moo tëgg lamb ji sargal Modou Lo mu ngi doog a daan Issa ñu koy sargal yoof tëgg tànn biir Modou Lo nee leen du ma bëree du fecc tànn biir def leen ko làmb ñu def ko espèce su làmb bu ndaw ñu bëre maag moo jëm. ma daan ko jël bu rëy bëgguma ko di tudd nag parce que xam nga rek. Ah, waaw <laughs> <laughs> ak waa ak ak mbëru arène yi ak euh, réparé tamit daan naa ko. réparé ban. raqu maarle. bëri ngeen nañu waaw bëri nañ Iba mbapat la. nga daan ko ma daan ko waaw. mais mës nga ñëw euh, inte euh, mas nga ñëw terrain euh, fële. stade Amadou Barry. stade fa mbapat. stade Amadou Barry bëri naa fa benn yoon benn mbër bu ñu nekkoon ci éco écurie Mor Faram. wextaan wextaan lañ koy wax. lii sàcc film bi nag booy nag doo jox combat nag booy nag man xam naa. waaw mais limal ma man damay fàtte parce que dafa yàgg. waaw sa digganteeg bëri nañ bi may indil avance bi sama ménager dana ma mbëru arène ngay bëril warul jël avance bi. boobu sama ménager ménager wu mbapat ma ne ko non bàyyi ma jël ko man maa yi mbapat rek affaire yooyu mu ne ma non non mbëru mbëru la te waroo ko jël te ko champion la biir géejuwaay noonu laa jëlee combat bi te man dereetu góor laa yor soo ne ma mbër bi ngay bëre moo la mën wala du sa rek damay jël làmb ji ah, instant boobu moo la mën ñëpp loolu la wax moo la mën parce que boobu wextaan moomu moom mooy moom mooy idoolu ñoom mbaytin mbaytin numéro 2 bu école Mor Fadam wextaan mooy seen grand wextaan combat ak Marley ko bëree marché bu combat bi des quelques jours mu blessé mais pour te dire que ne Mbapat moom ak ñooñu woon moom dafa mujj blessé ñu jël combat bi jox ko Mandela Mandela mujj ko bëree ak Marley yaa may dégg kon boo jëlee wextan dañ naan wextan moo la mën moom mooy favori waaw moment boobu maa ngi nekk mbër bu ndaw buy yéeg instant yi lu taxaw sama kanam dama naan maa la mën lu taxaw sama kanam dama lay effacé wax dëgg yàlla fit boobu laay demee ma ragalu ma dara biñ ma joxee combat bi nag ñëw waa parcelle ne mu waxtaan bi ngay bëri mbëru arène la du sa morom bàyyil foofu yow ni nga bëri ba bëri jinne jour boobu lañ ma koy njëkk a wax ni nga bëri ba bëri jinne te doo ko ma jël avance bi dem bëri ji ko Iba Mar ma fa daan bi sax daanu ko après si la ma cool yi ma topp julo julo bu parcelle bu parcelle finalement bala ngay dugg ci arène bi sa tour dafa na ma ci arène bi loolu moo tax ca topp ma parce que bi may ku ma war a bëreel arène kuñ kon kuñ combat da nga naan Julo moo samay morom man sama catégorie ñi ma maaseel âge mënuñu bëreeg man toujours ñi may bëreel ñoo may parce que ñi ma maaseel âge dama leen ëpp bëre mën naa tolloog ñoom âge tolloog ñoom yaram taay mais sama bëre day mag seen bëre moo tax dañuy ragal ku ci jël sa avance boo demee sa écrit da koy delloo ay cinq mbër delloo nañ sama avance yoo xam ne arène la boobu duggaguma arène promoteur da nga dem sa écrit ñu delloo la avance bi mën nga ko jël mais booy dem seen écrit ñu lay delloo la avance bi nee la bu ci arène bi sa dernier combat dans l'arène dans en mbapat bëree woo ko aslem sa diggante Papa Sow saa <laughs> yow fekkee nga lépp non mais la cee mere waaw yow moom yow moom yow moom seen naa mën naa da nga maa topp quoi parce que li nga ne woon mbapat yi nga may limali foogu ma ne woon yow yaa ngi fa assisté taxaw mosuma ko woon foog ah. Naar Soga su ma juumul moo ko arbitré wala Moussa euh, Ndoye. Moussa Ndoye moo jooju waaw mais lamb jooju waaw ñu bëri dañ ma cay mere nag. parce que sëy naa nekk naa mbër boo xam ne damay wax ñi may seetaan a daano mais yàgg naa dem mbapat di tam mais ma demee lamb bëre ñàkk rek xamal ne suñu borom a ko dogal man damaa war a daanu nit laa quoi. mais su boobu ko waa naagu mu ngi ci. la vérité parce que bi nga tenté. pour daan Papa Sow prise bi dafa osé qu'on se boobu loolu Papa dañ koy coow biir asalem ne daanoogul amagul defet benn booy moo ko mën a daan bu ñuy wax julo mu ngi toj parcelle. nañ ko dafa toj fële yow nga toj fee. biir mais mais boo ñëwee respecté ko. mu toj biir asalem biñ ma wooyee ma ñëw ma ne dama koy humilier dama koy foowee ah, ah, ah. looloo ma dal. xam nga ni man maa ngi suivre de près. non yaa ngi suivre yaa ngi. prise bi nga tenté pour daan ko. ba ba sa sa sa fes non yaay fa taxaw yaay fa parce que jour boobu waa 2 fa ñëpp a fa làmb ji làmb la mais ñi may bi may ñibbisi bi ma jógee asalam di ñibbisi HLM ba parcelle ñi ma àndal na fa. kaw gurne bëri na fa waaw. Euh, mbay ñaa rakku ñaa xarañ loo. waaw moom moo bëree grand combat bi ak euh, Boy Town. Boy Town bu bu sumbe jur. Boy Town wax nga yaa maa ngi koy fàttali ñoom bi man bi ma duggee parcelle am na mbër walla mën naa ko tudd sax alfa mhm. mais Taïs moom moo ma ne Zilo na bàyyi mbapat na dem bëri ji arène Julo li mu def ci mbapat amul mën mënatu fi def instant bi lu ko raw. na bàyyi mbapat yi dem bëri ji arène. mais moment boobu tamit bu ñu waxantee on se la vérité bi ñu waxantee boobu sama as demagul fenn tur bee ma sonal tuuti naa tollaguma nen mais coow li topp na ma comme coow li topp na ma nag arène jot na arène jot na mais ñi la bëgg dañ lay wokk ci neel xaaral tuuti. sa doole des na pour nga bëri ji arène bu la coow li topp ak ñi lay jaay alpha ñoo foowandoo bi ñu moo tax muy wax noonu mm-hmm. mais moment boobu li ma def ci làmb def ko ci mbapat du yoon man maanaam maanaam du yoon sax ngay ñëw di di di di di di di ci arène beeg yooyu noonu parce que yéene la waxee parce que li nga def ci mbapat dootoo ko defaat. voilà Alpha loolu ma wax. fi defaat lu ko raw. mënu defaat waaw wax na dëgg wax na dëgg yéene la woon rek parce que moment boobu tamit arène bi jotagul ñu ngi ma tëggal suma combat arène je me rappelle 2014 su ma juumul. 2014 Ahmed Dem. Mhm, Ahmed Dem Moussa Dem Moussa Dioum Dem euh, Prince moo ko tëggoon.